nañ bàyyi xel bu baax ne njuumte munta weesu dugg ci ay gone yu nekk ci daara jële leen fa yóbbu leen ci centre te su fekkee image yi ñu gis noonu la am na ci yu solal ay tenit leen football loo am na ñu ñu wax ne ñu ngi leen di seetaanloo ay film porno di damyee di bëloot di yoote ak a def ay caaxaan yoo xam ne diine ji da koy tere suñu aada nanguwu ko way juri xale ya bëggoon ci xale ya lu sell ba jël leen yóbbu ca daara ya ñu jël leen yóbbu di leen yàq loolu ci turu daara ñu ngi koy condamné fermement tey wax état ne ko na jël responsabilité am bu ko ñoxo bay Diouf yàqal li muy def na jël responsabilité am ba tey Sali Diop Diankhoum na jël responsabilité am te it yëf yi am na ci loo xam ne lu mat a bàyyi xel la dama defee ne su fekkonte ne état daa bëgg a tëj daara kooku ministère de l'éducation kon bu doon décision wu état moo ko war a appliquer euh, am na inspection des daara. mais beneen xawma ndax petite enfance wala nangam. protection des enfants aussi mi ngi mi ngi logé foofu. waaw protection des enfants euh, xawma ndax day prohiber sax les enfants parce que gone guñ jël yóbbu ko ci daara di ko jàngal di ko yar nga yóbbu ko di ko jàngal fecc ak tàccu di ko léebal ko seetaan loo film porno. film porno nga sëñ bi am na ku ma dégg mu ne ba muy dem loolu la fekk ñu di ko seetaan. am na image yu ñuy gis ñu ne ñu ñii ay xale la ñoo xam ne ci centre lañ ne centre yañ leen yóbbu ban sécurité ñoo fa ban sécurité moo fa ne kon am na loo xam ne dafa war a arrêté daara yi ñuy dem di jël gone yi di yóbbu te yóbbu yóbbuwuñu leen ci seeni jur wayjur yóbbuwuñu leen ci barab boo xam ne sëñ daara ba da leen fekk di leen jàngal ñoom ñi defar condition ya oui nañu am nañ centre nañ fa wutal sëñ daara place mu dikk ànd ak ay goneem ñu nekk ci parce que affaire bu fekkee affaire condition la ñuy wax nañu nañ créer condition yu baax condition yu baax yee sax léeg-léeg ab la ñu yóbbu foofu bu ñu ko defoon ca daara ji condition yi baax bu fekkente ne du lool nag xanaa jël gone yi di leen yàq loolu wërta doon combat wu sëñ daara yi kese waaye wayjur yi jëloon seeni doom di ko defarlu te ñoo ko bàyyi juuf ak ñim àndal dem fas leen yéene yàq combat boobu maa ngi ciy woo waajur yooyu. dëgg la rafetlu na ko ci wax rek moom si xaw a jaaxal naa ni euh, ni nga toll nii booy wax di nga am des preuves je pense bien des preuves tangibles parce que c'est c'est un peu grave quoi te dire que waxuma la ne gis naa ko waaye nee naa la am na ñoo xam ne nee nañu bañ fa demee gis nañu ci télévision yi ñuy seetaan loola ne ci. ñoo wóolu ñoo ah ma nag lu ci am dëgg-dëgg. xam nga film porno moom wër na li mi ngi daw ci suñu télé yi moom ah. yi rek <laughs> film yi parce que léegi dafa mel ni film porno amatul sax daanaka film lépp ci film yi porno la. ndax ñu ra ñu rafle ngay gis di def yu ñàkki teggin gone goo xam ne dañ ko daan tere mu seetaan télé mm-hmm. di ko tere yootee ak dab ye nga di ko tàccloo di ko feccloo. am na photo yu ma gis ñu ne ci centre la ay ay ay ay ay ay ay nu mu tudd euh, tiset lañ leen solal comme équipe bu